toujours un plaisir de vous retrouver dans votre émission Dakar ne dort plus sur la chaîne leader la TFM jërë ngeen jëf gaa ñi maa ngi kontaane bu baax a baax a baax a di leen bëggee fu waaye mën a nekk fu sénégalais nekk rek maa ngi lay kontaane fii ak extérieur yëpp maa ngi leen di bëggee bu baax a baax mes téléspectateurs maay seen di jox li nga xam ni moom ngeen soxla au tey noonu lay demee Dakar ne dort pas samedi ah tous les samedis abar no stress moom ngeen am di leen kontaane sama équipe bi maa ngi a baax gaañi tey nag euh, li ñuy def euh, mooy dina am ambiance comme tous les jours mais tey dama changé li nga xam ne mooy ay instrument tey dama génn ci sabar ak yooyu waaye dama cee rax tuuti tama ak leneen loo xam ne ci kanam euh, dinañ ci ñëw waaye dinaa dem seeti ki nga xam ni moom mooy foofu la xewoon ca grand théâtre ki nga xam ni moom mooy Bessél Bass demoon ci loolu nga xam ni moom mooy défilé Caana Diagne jour ji bu ñu jugee foofu ma dem ci Collé moom dafa demoon ca gaynde xool soirée Papa Ndiaye euh, Thiou ba mu doon sargale Papa Diouf waaye bu ñu paree foofu damay dem seeti ki nga xam ni mooy dërëm nga xam ni moom ci jëmi boppam dërëm lañ doon ci sargal moom ca plage boobu nga xam ni moom mooy ca Besseyao loolu mooy programme bi tey am naa ñaari invité yoo xam ne ñoom ñooy sama invité du jour waaye am naa ambianceur boo xam ni dootuñu ko présenté réew mi Yat Faye Yat dina ñëw léegi-léegi bu ñu paree ci Yat ma indi bu ngeen nappoon euh, bu ngeen namoon dafay way way wu rëy way wam fi way ma ngay yëngal li nga xam ni moom mooy YouTube bi ma ngay am ay vues yu bare baree bari c'est un grand ambianceur la ndaanaan la waaye dama am beneen évité boo xam ne namoon ngeen ko gën ngeen koo gis ma invité ko sama plateau waxtaan ak moom ma ne ko booy mu ne waaw ma ne ko son bi def ci mbalax def ci ambiance ndake sama conseil bi bàyyi na ko xel def na ci mbalax def na ci ambiance ca kanam kanam dina ñëw dañuy def tey dañuy def Dakar ne dort pas bu ala daw nañu dem xooli ambiance balaa ñuy dem fenn yaat yow laay nuyu ambiance xoolal Dakar Paris boo demee ba ñëw s'appelle ba ko fa TFM danoo neex boo demee ba ñëw s'appelle ba ko fa TFM danoo neex aba nay dëgër nay dëgër këj Dakar na door pili nay dëgër nay dëgër këj nay dëgër nay dëgër këj nay dëgër nay dëgër këj nay dëgër nay dëgër gëj nay dëgër nay dëgër gëj nay dëgër dëgër gëj ak aba dëgër gëj ak aba dëgër gëj dellu ca dëgër gëj nay dëgër dëgër gëj ak aba dëgër gëj abaa nga fa ci gaañi damay seeti abaa moo xew ci jamono day xale te jom ja bari ma xale la jom ja bari ma nan ko bàyyi xel nan ko bàyyi xel nan ko bàyyi xel nan ko bàyyi xel nan ko bàyyi xel nan ko bàyyi xel nan ko bàyyi xel nan ko bàyyi xel nan ko bàyyi xel bàyyi leen ko xel bàyyi leen ko xel bàyyi leen ko xel nay dëgër nay dëgër gëj Dakar na door pili mooy Yat Faye ak groupe am tarkal la xam ngeen ni cin bu naree neex suba rek dafay xeeñ Dakar na door pluie bu tay bi ragal naa ni euh, dana wuute loolu ak yi nga xam ne moo fi jaaroon man nag damay bëgg di def loolu mu nekk étape par étape bii ñëw mooy gën a neex bi nga xam ne moo romboon waaye bu tay bii am naa ci yaakaar lool lool waaye bu leen fàtte ne yéen ñi nga xam ne da ngeen war a def ay vidéo selfie foo mënti nekk ci àdduna mën nga teg son bi nga xam moom lañ def challenge nga daal di ci def vidéo bu doy waar daal waaye booy tëj rek ni ñu ngi suivre Dakar ne dort pas sur rek lañ la ñaan ci fin bi amul loolu ci vidéo vidéo boobu kenn du ko teg ndax man dama bëgg ku may waxal sama yu baax ah bëgg ku may waxal yu baaxi émission bi ak yu i kër ga nga xam ni euh, euh, man ci laay kii euh, kii lu ma yóbbu ngiwal waa kay yooyu def ci am solo waaye vidéo bi nga xam ne mooy def buzz tamit chaque samedi dañ leen koy tegal ngeen mën koy xool vidéo bi def buzz ci semaine bi da ngeen xool laata ñuy dugg ak duggaat muy gën a sori nañu dem xool yi la xewoon ca Grand ak Bessel ca défilé boobu nga xam ni moom mooy Thiané Diagne jour ji ayca ana Bessel asalaamaaleykum mbokki xarit yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal lu bëree bëree di wax rek eh, saa su ne mbégte ak bànneex la ñuy daal di am daal di ñëw nag si Dakar na dort pas plus Dakar na dox plus andi ceeg ka nga xamante ne nag macha allah mais balaa may wax dara rek Aba dama bëgg nga reetaanal ma benn reetaan bu sew ma daal di ñëw ci yow ayca abaa ah reetaan bi neex na ma trop donc pour ma gën a mën a nekk en forme lii la soxla woon pour nga reetaanal ma reetaanal euh, gars yi donc euh, aba ñu ngi fi nga xamante ne rek moom mooy grand théâtre grand théâtre nag euh, tey dañu daal di ñëw nag si grand événement boo xam ne ni kenn dootu ko présenté si Sénégal muy Thiané Diagne jour J mu daal di organiser nag benn défilé bu mag a mag boo xam ne nii nag parce que ku ne Thiané Diagne ne choix bi nag mu daal di indi li nga xamante ne rek moom mooy grand boubou dellu nag cosaan ak aada parce que dafa nekk loo xam ne lu am solo la te bu ñu bëggee nag suñu Sénégal gën a développé wu gën a dem ci kanam faw nag ñu delluwaat si ginnaaw daal di nag xool li nga xamante ne maam bàyyi woon nañu ko ñu daal di ci nag jëfandikoo daal di koy téye tamit ñu fexe rek mu bañ a réer ñu bañ a gàddaay bu ñu gàddaayee yokk koog la ñu am Aba dafay daal di gën a neex waaye balaa maa dugg ci biir Aba dama lay woon sama sañse rek nga wax ma loo ci wax xoolal. sama rakk ji sañse nga lii rek laa def. oh. may la ko nag donc di remercier waa complexe oh. alhamdulilah ñoom ñoo réaliser donc robe bi aba li ñuy def rek mooy dañuy dem si biir xool ñi nga xamante ne ñoom ñoo wii si Thiané Diagne parce que tey guddi modd la ñu wax gars yi téléspectateurs yi jàkkaarloo leen ak ñun ak Thiané Diagne jour ji ànd ak sama caméraman exactement parce que tey ku wax défilé nekk ci podium. da ngay daal di am fierté mu sol sa tenue mu daal di défilé nga daal di bëgg mu mun ko lool nag. ñu gëjoon ko gis waaye tey ñu fekk ko fii nag ñu laaj ko rek kooku mooy kat. li nga wax ni yëpp dëgg la kokoy ndàkk <laughs> juumoo benn yoon. juumoo ma benn yoon <laughs> est-ce que fàtte wu ma point yi. non non juumoo li nga wax noonu la. dama ko bëgg waaw ma chérie xam nga rek euh, euh, entre Dakar et yaa ma gën a xam liggéeyante ay affaire ak yooyu mais ces temps-ci quand même je suis là je suis là te Bessel euh, kontaan naa bi ma la gisee déjà parce que yaa ngi def sa robe bu rafet parce que quand on parle de défilé dañuy bëgg a gis ay tenues yu rafet dañuy bëgg a gis maquillage bu rafet bu glamour. mooy li nga mën. waaw loolu la parce que xam nga benn instant c'est ça le défilé parce que c'est la mode et quand on parle de mode on doit vraiment montrer les tenues et je suis à côté aussi de de Bar euh, maîtresse qui est magnifique parce que ñun c'est la vieille école mais on est là aujourd'hui pour soutenir Thiané. bah oui bah oui woo nañu kaay jàppale. quand on parle de mode doit forcément parler euh, de Ndeye Ndack ah ouais c'est normal dañ maa yàq oh. défilé bi bu ma woowee damay ñëw. kon nag gis ngeen Ndeye Ndack Aba lan nga wax si Ndeye Ndack mais Aba loo koy wax. mais Abba moom sa lumière am rek ëpp na. Ah! ëpp waaw lumière am ëpp na. mais bu ñu jógee nag si ndak tey comme te nag vieille école ñoom ñoo fi daal di daje euh, soxla si ñu ngi lay maa ngi lay fay Bessel maa ngi lay fay. tey lan moo tax ngeen euh, bàyyi woon défilé bon entre parenthèses. bàyyi woon mais xool ko ni muy yee si oh! ko waral mooy en fait euh, Tata Thiané dafa nekk déjà suñu kóllëre bu yàgg bi ñuy défilé ak moom ba léegi vraiment dafa mës a rafet. et lu ñu bàyyi bàyyi on a des tata des yoo xamante ni Thiané Binta Xuma tata Juma Dieng tata Collé mënuñ ñoo woo ñu bañ peut-être am na lu ñu gis ci ñoom am na ñoom lu ñu gis ci ñun ci seen i yére et moo tax ñu nekk fii et en plus ñu nekk ay mag ñu baax aussi nekk ay yaay nekk ay tata te tamit am fulla ak fayda ñoom ci li ñuy def moo tax ñuy gën a am toujours courage ak fierté aussi di sol seen i tenue di génn di si na nga def. ça va bien monsieur mooy sa teewaay fii nii. pour ñëw défilé ak Thiané. waaw Thiané Diagne waaw. lan moo tax nga bëgg a défilé ak Thiané. man nag dama dama dama arrêté woon sax je fais partie parmi les anciennes mannequins. ok moi c'est Coco Sarr. donc puisque daf ma woo pour ma ñëw jàppale ko ci bés bi. c'est normal ma ñëw jàppale ko. Khadija Mbada. ah Bessel Jamta. ça va Maodo Mbengue. Khadija dama bëggoon nga jóg rek. waa pop pop pop pop pop mais Khadija Khadija du bàyyi yoon waa Khadija hmm. da nga nëbbatu woon. Oh. nekk si lan. waaye yéen xoolal leen ma Khadija mi. Oh. oh xoolal leen ma Khadija mi rek. oh Khadija foo duggoon. Mbesel maa ngi fi rek da nga demoon benn petite aljanna bu ndaw. maa ngi toog fii sama njàmbur. jàpp sama njàmbur. <laughs> tey ñu retrouver la donc si euh, ak Thiané lan la ñuy xaar ci yow. Euh, xoolal ki nekk si ginnaaw ne euh, c'est mon ami ki taxaw ci ginnaaw ne c'est mon ami JP sama frère mannequin yi ñëw ci kii ci ginnaaw c'est JP c'est mon ami ñoo def loo mannequinat man ak moom caane woowee woo yi nga xam ne ñoo doon yàgg défilé ak moom pour ñu ñëw oh, yéegaat ci podium bi loolu daf ñuy neex Aïcha Bessel euh, ñu ngi ñëwaat léegi léegi léegi foofu nga xam ni euh, c'est le défilé de la nuit euh, du boubou donc ñu ngi ci ñëwaat léegi léegi ak Thiané Diagne jour ji foofu ci Grand Théâtre dañuy def benn bougement bu ndaw rek yëngatu xaw a dem fenn ñëwaat ci yow léegi léegi am na solo en tout cas ñi fi nekkoon démb ci ay mannequin am nañ maanaa lool lool lool mais gis naa fa ay mannequin yu bees tàq ay booy yu mannequin ay ñoom JP maa ngi faa gis ñoo jàngandoo dox man ak JP ñoom ñoom xuloo ñoom xuluyoo ak ñoom booy béy ñooñu man lépp def naa ko booy man bu ma gis nii rek <laughs> luy jàng nii ni di ko def yëpp pour feeñ man feeñ rek laa bëggoon moo taxit euh, xam naa ne fii laay mujjee dañuy dem euh, fa la ñuy doxee dem foofu nga xam ne mooy ca gaynde ki nga xam ne mooy collé de soirée Papa Ndiaye Thiou boobu nga xam ne da doon rendre hommage à Papa Diouf ah ñu dem di ngeen ci gis ay image yu doy waar ndax bëri naa fa ay xarit lool lool lool naroon naa fa dem xaw lan moo ma téye dañ maa am fu ma ndeng ñoon nañ dem xool yi lan ma fa xewoon ak collé te ñëwaat ci plateau Dakar na dort plus ay ay Aïcha Aba maa ngi lay nuyu mon ami mon frère. di la wax nii maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay ko léegi nii du ay caaxaan. Eh. gis nga zëzal da ma tourné la. Aïcha Aïcha xale bu ñeme boppam laa lay wax nii xale bu ñeme ñeme ñeme boppam. attention le fil Ibra Ibra tamit lii lan la nii tamit. Kole kay lay nuyu Aba bu baax a baax a baax a baax yëkkati sa dàll ma xool loo sol ci suuf yëkkati say dàll. waaw kay. gis nga xale baa ngi nii xale bi rëkkatal di yëgal niveau di def ñambax ba mu teree bien maa ngi nii taxaw xale bu ñemee boppam waaw kay di nuyu ñëpp waa Sénégal ñëpp di nuyu ci rawatina waa Cambérène sama sëriñ soxna du Thiaw Laay mu maam Babacar maa ngi laa ziar bu baax a baax tey nag maa ngi gaynde lu fi xew waaw loolu nga bëgg xam nànk rek nga naan kolle lu xew lu kolle lu xew tey sargal Pape Diouf la ñuy def kan moo koy def ñu ne papa lu xew kolle lu xew nekk si jàmm ñu de tey moom dañoo ñëw seet suñu am di jàmm suñu doomu nday suñu mbokk si aar di Papa Ndiaye ak ma xuja tey borom baatu ruus bi daa déplacé ñu seet si leen dina te du yomb te yaa ngi yëg yaa ngi ci Dakar na ta plus ah Dakar na door ba plus nee naa la ak Aba dara du doy allo allo allo allo léemul waa Sénégal balaa ah non kon léemu naa waa Sénégal yëpp nag ñi may seetaan à travers euh, Dakar ne dort yow nag sama xarit bi ma lay nuyu di la bëggee. fay lu bari. ah waa mais. tey lu teewaay bi biir tey man moom ku ma ku ñu ku ñu gis sax xam ne Papa Ndiaye Thiou sunu mag la kon nag tey bu xewlee ñu ñëw gaynde mën naa ne tubaab dugg na Paris. pare te ngaa génn ci ruq yi waaw loolu dara yow kapi boo ko bëggee ma la koy jox man yaay sama jigéen sinon lépp jàmm. yaa eh, ngi ci Dakar doo pas plus avec Abba. et ënkët la ñu ngi koy nuyu muy sunu mag bi sunu frère. li mu sol ënkët la ënkët. waa TFM ñëpp waaw di leen wax tey ñëw bi ngay ñëw fii ñu kontaan nañu trop. waaw ñëw rek ñëw ñëw pour la <laughs> nee na ah. parce que avant ma wax dara damay félicité Abba. ndeysaan di ko encourager. c'est mon ami di wax ne maa ngi gis liggéey bi mi ngi nice. merci beaucoup vraiment jàppal foofu la. lépp baax affaire baa ngi nice. mais nag Abba. xam nga dafa am benn dafa am lu ma xaw a jaaxal. lan la man daal nag man Dakar door pass sama jabar rek laay tombé. mais boole ci plus. plus <laughs> Dakar na door plus. Dakar na door pas plus. plus <laughs> mais lu tax lu tax plus bi loolu laa bëgg laaj Abba. doo bàyyi Abba non bul wax bul wax bul wax bàyyi moo tontu ko wala waaw waxal déglul déglul. waaw Abba dama bëgg nga wax ma lu tax plus bi ndax waa Sénégal xam lu tax plus. plus baa ngi nii buur plus baa ngi nii. asib ah, maa ngi nii ma am mbégte nag loolu ci ngeen teew ci bisu Papa bi mu def lu rëy nag di fecckat boo xamante ni macha allah li ma koy wax ne ko bu gars yi bëggee fecc yaa tax bu si lu fecc si lu yaa tax mais tey dafa def lu rëy dafa jël le de la génération consciente di ne dama koy sargal Pape Diouf jógee ci bis bu rëy boobu di Bercy tey jii ñu koy sargal ci fii nga xamante ne mooy gaynde bis bu mag la kon tey su ma gisee waa Dakar ne dort pas plus ñëw ci bis bi dama ciy am mbégte ca loolu ca génn la doon xewee foofu nga xam ni moom mooy Anne Maris ah, ngi koy béggee bu baax mom Papa Ndiaye Thiou ah, suma grand suma xarit doomu yaayu Amady Badiane ak Ahmed Thiou ñu ngi lay kontaanee bu baax a baax di def lu rafet rendre hommage à kan Papa Diouf ah du woo ko ne ko kaay da ngaa demoon foofu ca Bercy jël drapeau réew mi daal koy yóbbu am ay ndam kaay indi ko fii ci gaynde ñu daal koy feete andi ceeg ñoom abu ci ak ñëpp dinañ fa ñëwaat léegi léegi ngeen gis fa yeneen ni ndaanaan ndax loolu guddi la woon goo xam ni ndaanaan lañ doon delloo njukkal waaye man Papa Diouf bi mu jógee léegi luy ndokkale man tax man dañ ne ma bu xew amee boo neen di ndokkale mooy woo nga ko yow appel moom daa war a répondre pape boobu ba tey ñu ngi lay xaar waaye dañuy dem foofu nga xam ni moom dërëm nga xam ni bëgg na boppam bëgg boppam goo xam ni moom dërëm moom lañ doon sargal moom dërëm mu ne moom dërëm mooy demal boppam ca sargal ba nañ dem xool ca plage besa yaawoo naka lañ doon sargalee dërëm ak dërëm naka la téye woon li nga xam ni mooy micro bi ñu dem acca salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum fan si nga xamante ni ñoo safoo Dakar na door parti di ko seetaan ñu di leen nuyu nag saa su ne fi nga xamante ni tey nag fi ñu leen di nuyoo muy la période nekk fi nga xamante ni mooy plage bu Besseyaawo tey nag lan moo xew kenn du ko laaj sama rak sama xarit muy mbay Babacar Diop xale bu mën a woy di jeune talent nekk nag daan aw Demba Guissé ak yeneen woykat tey muy tëgg fi nga xamante ni mooy la période di salgar magam xaritam muy dërëm yaay ma ànd ak délégation nag bu mat délégation jëy naa sama rakk ji nga xamante ni tubaarkàlla macha allah ak sama rakk yi taxaw ñoom ñëpp ñëw darma ak ñi nekk ci biir tey dina mel ni suppu netatu tey jii tey lay mel ni suppu netatu jëy naa xam nga dina saf de. mais tey déggoo ma ne la tey fii dana mel ne lëmbalu vampire matante gi day bëri lool dëgg neexul yow buñ lay sargal mel na ni ñun ñëpp na ñuy sargal ndax dërëm wax dëgg yàlla doo pank doo pangalanga doo wànq doo wanga langa doo wër doo mooy sa jëkkër am ndaw ngi noonu borom TFM naka tool ka <laughs> waaw dërëm tey du yomb lii bu doon café kenn du ko naan ndax we xatt lay def senegal lañ woo de dërëm mii ñu baak non on nañ naar ci guuxante ndaw lu mu ñeme am na jom am na bari bëri fayda kenn yabagu la am nga am cacas cacacas am nga ay cacas e dërëm e Sénégal ma fi yónni naa la gërëm léeg-léeg sax ma jaar ci biir kër ga di la sànni ngërëm waa réew mi dañu la gërëm doom gu réew ma gërëm ca biir kër ga kenn du ko yërëm te dangaa làq ngërëm mu dërëm mo TFM daka tool la kat mo yéen TFM daka tool la kat ma ànd ak yaay Baba Diagne lébu Ndakaaru bi jaañ naar moom nga xamante ni mooy Aline ñu daal di ñaaj nag ànd ak ki nga xamante ni mooy Bas mu defal ma tey Bas Bas euh, mode foofu ci unité 20 mu defar ba mu baax ni ma demal bégal Sénégal sama waaj sama waa ji ndama ngi ci gàccee ngi ci ndumbe madame ñaa euh, madam Ndiaye jaata Ndiaye mu defati seve bu baax ni ma demal bégal Sénégal ma ànd ak Baye Daara foofu ca marché Dior mu joxe ay accessoire comme tey bis bi dina mel ni supp ne tatu nanu ñaaj xool gars yi ni ñu iya gone diploma yi gone yi de su la yàlla maye teranga ku fàtte si waajur ye ndax yoon la gën ci duniya ku leen jooyloo ku leen merloo waaw waaw ñoom ñooy seen waajur ku leen jooyloo ku leen merloo waaw waaw ñoom ñooy seen waajur naa la yaay mbay maa ngi ko cuubal mbaa jàmm moom la rek ah, dégg naa nag yow doo doo guddi tey gi loolu laa bëgg nga leer ko askan wi am na moom dafa di nit ku baax man du ma génn kër gi ma ne sax du ma fa génn mais moom mooy tax rek ma génn moo ma moo bëggal boppam ki bëgg moo la sonal loolu loolu non kenn nelawul kenn nelawul ma bàyyi ma monsieur muy nelaw moom kese nu ma daal di ñëw fii toog gisoo loolu

ah guddi gi daal sama guddi rakk la waaw dañ defar ba mu baax sama guddi rakk la daal ma ñëw feelu si ka daal waaw fel felaa waaw waa Brescia waa Bergamo waaw tel naa leen waa Brescia waa Italie Bergamo lu guddi gi gën a dem rek mbay ndaanaan yëpp ñëw wusi woon nañ ko ak euh, ku ci nekk rek xol nga ñëwee nuy naa la chéri maa fay bu baax kay mbay Babacar ñëw tey ñëw def guddi gu riis ñëpp bég lan ngay ñaax Mbaye Babacar ak loo koy ñaanal. di kontaan ci moom di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm mënuma wax sama xol dafa sedd waaw may moom sama féetal yàlla moo ma booleeg moom sama góor la sama xarit la sama lépp la maa ngi koy ñaanal yàlla. Masou nuy naa la. fay naa la dërëm. tey ñu may sargal ngeen ñëw teew ma gestu gis sama ginnaaw yéen ñëpp sama xel dal. Mansour yan kaddu ngay sànni gannaaw dërëm bu ma nuyoo groupe Futurs Médias ba pare di la xamal ne yow lépp loo xam ne yaa nga ci rek képp kuy koo xam ne mi ngi ci biir réew mi daf la war a delloo njukkal an ñëw àndante kook yow xam nga yëf yi dama ne wolof dani njambaarum daqaar ak ma ci tay baaraama ànd waaye gis nga njambaan mi dañ koy njambaan ci teg ak teraanga naan ko ci naan ko tëri dërëm noonu donc lañ koy defee

déggoo dara baax rek am solo te yow artiste plein vraiment tarkal la yaa ci lépp nag yaa ci pecc mi yaa ci way yaa ci taasu yaa ci animation vraiment loolu la ñuy ci ndanaan donc bu ñu la delloowee njukkal loolu dafa war waaye keneen ku ñu war delloo njukkal mu war a ñëw ci plateau bi euh, yàgg yëngal réew mi euh, bu ma koy waxtaan naan ko waa grand seeni temps mu ne ma booy suñuy temps boobu dañ ko daan toj te ba tey ñu ngi ci seeni temps de te ñoom dañoo xajal xale yi fi ñu toon yi seen bopp ñoom euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon démb waaye ba tey mu ngi fi ndax ba tey mu ngi yëngal ndax lii mu génnee tarkal mu ngi yëngal réew mi te boo xoolee YouTube ma nga ca kaw a kaw a kaw ki may bëgg a woo ambianceur la wooye nañ ko chef d'état wooye nañ ko le général wooye nañ ko lu nekk waaye dañ ci yokk dañoo jël tur yëpp daal di koy boole chef d'état-major colonel commandant des ambianceurs mu Moussa Xorom Fallou Dieng noo def grand nam boon dañ la. mais maa leen raw waay abaa waay mais grand réew mi namm na la. mais maa leen raw. oh maa ngi lay siyaare waay. <laughs> di la di la di la dalal ci ci place bu bees bi. merci beaucoup yàlla yàlla xeb dolli. maa ngi lay ziar yaa am solo. maa ngi góorgóorlu. Eh, maa ngi lay ñaanal. jaajëf comme ni la réew mi yëpp soppee di la ñaanal. jaajëf. ndaw nga yaa ngi sa yoon. jaajëfal sa bopp yéen suñuy kilifa nga bu ngeen ñëwee place bi lañ leen di jox ñun ñooy taxaw fii mais Fallou tey bu ma la bàyyanteeg nga nuyonteeg téléspectateur yi ba noppi euh, nu laaj Fallou fu mu nekkoon nga waxtaan ak ñun. waaw Fallou maa ngi nuyu téléspectateur u TFM yëpp ñuy seetaan ñëpp. Mhm. fii ak bitim réew ndax télé bi télé diaspora la ah. mhm. àdduna bi fa koy seetaan. mooy mhm. nuyu borom télé bi euh, di sama mag di sama xarit di Youssou. di nuyu tout la famille Ndiaga euh, Bouba Ndour Ngone sama promotionnaire. Eh, di nu ndeysaan toute l' équipe. Mhm. bi ngay di liggéeyal ñoom Mia. Mhm. wax dëgg yàlla seen liggéey am na solo. dëgg la te gis naa ni décor bi décor bu am solo la. bu rafet la la mais grand lu tax ñu gëj laa gis. bon xam nga gëj a gisee bi rek wax maa la ko doon expliqué. Mhm. récemment. tey dama xaw a soj na baat bi may xaw a dee quoi. baal nañ la ko. voilà donc euh, gëj a gisee bi du dara lu nekkoon ci liggéey. pendant quatre ans gars yi gisuñu ma woon ci marché bi. yàlla def nag ren ma décidé. ngeen defal gars yi benn maxi. Mhm. maxi bi def naa ci quatre titres way ci ndaanaan. Mhm. way ci bennoo. Mhm. way ci leeru xol. tu vois pour bégalee ko gars yi. mais maa ngi woon fii rek liñ naan xam nga rek euh, euh, ñang moo gis dafa am àllarba. dëgg la te it am na benn moment amoon naa benn rupture toog mais dem moon fenn maa ngi woon ci réew mi. te it xam nañ ni aussi tamit. namoon nañu Fallou Dieng. et jox na leen benn produit sur le marché. produit bi nag am na ñu ko yëg am na ñu yaakaar ni génnul. waaw ah. mais génn na. est-ce que amul communication bu ci waroon am te amu ci. voilà donc euh, gars ñi ni ñu ci waroon jàppee na jàppee wuñ ko ci. mais nag moo ngi ci yoonam di dox. Mm-hmm, mm-hmm. parce que li ko war a gunge yëpp tamit euh, bari na. Mm-hmm. muy ay soirée. te yàlla xam na ni bi ma génnee produit bi après dama mais album bi lan moo tax ñuy gis Fallou di def ay live yu doy waar ci oto bi ba pare album bi génn nga xam ne oto bi ñëpp dañ koy suivre album bi génn doo ko teg ci oto bi nga mën koo jaay àdduna yëpp mën koo gis. <laughs> waaw oto bi nag xam nga dox na de. oto bi xam nga beneen affaire la. <laughs> waaw waaw oto bi maa promouvoir tous les artistes sénégalais. bi ma bi toogee réew mi gëj maa gis. Mhm. oto bi laa ibbi. mais oto bi yaa bi laa ibbi muy Fallou. Fallou dans sa oto daw lu bari. waaw bi nag su ma koy dawal. Eh. ah melomaan yeeg fan si yeeg. wallaahi wallaahi ko may seetaan. waaw affaire bi di dem ba yaatu. ba nga xamante ni xajal naa ci toute la crème musicale sénégalaise. Mhm. tey képp ko gis muy artiste. ah jaar na ci oto bi. te oto bi tam dama ko def yëglekaay. Mhm. yëglekaay maanaam koo xam ni am nga événement. Mhm. boo ñëwee muy Sénégal muy waa diaspora bi dinañ yëg li ngay def. am na solo te it lu am solo la loolu dama ko def rek pour yaatal. waaw donc moi je pense que tamit. comme ni ko gars yi kii ñu bari ñu xam morceau Fallou yi. Mhm. dañ koy dañ koy dañ koy faral di. dañ koy bàyyi xel euh, surtout parce que dafa am animation 100 pour cent DLC avant may invité. waaw euh, pourtant ñun ñi nga xam ne sax ay animateur dañ di ay mélomane ñun it xam nañ son boobu nga xam ni mooy leeri xol. waaw euh, fi ñu toll nii son boobu mooy def bomb ci biir YouTube bi. waaw leeri xol nag dafa nekk morceau boo xam ni dafa ñëw rek nit ñi adopté ko ba jël ko seen bopp ndax dafa am sentiment bu ci nekk ndax xam nga nit ñi rek booy woy bëggeel day sonn. ñu dem ba ci biir nag morso bi nag indi am jikko <laughs> am génn ay jikko xam nga morso <laughs> daa soppeeku dafa xaw a génn ay jikko <laughs> ndax man damaa dégg man wax naa ba am jabar nan bala ma bàyyee ñaareel bala ma bàyyee ñetteel waaw naan fàllu suba fàllu fàllu ngoon fal fàllu ci tax woote yi daw suba ak ngoon waaw man na laa nga ñu teg ci Touba gaa yi Mbàkke yi yàlla ma yàlla ko mën doo yàlla waaw est-ce que est-ce que est-ce que mën nañ ko am réew mi dañ daan koy am koy am ay ana ana gis nga grand kaay nii kaay nii wallaahi wallaahi gis nga gis nga pour yéen yéen ñi nga xam ne yéen a yor fii ci kër gi wàllu technique gi bu leen sonn ci man man la clim mënul ci man dara clim ma mënul ci man dara mënumaa toog benn place mais grand vraiment lii nice na. merci beaucoup Abba ah waaw son bi alkaati alkaati moom. Dubaay Dóor mukk ci àdduna mukk ci àdduna. xam nga nit bu ñu la étiqueté dara. ambiance. nit ñi dañ koy xaar ci yow. toujours mm, mm. Sénégal nañu namoon ñoo ma namoon. Mm-hmm. mais man it ku leen namoon la. waaw ndax euh, amuñu lii. maanaam bégal nit ñi. Mm-hmm. yee nit ñi bégal nit ñi ci forme man loolu mooy sama technique. Mm-hmm. ndax parole musique yoo mës a génne yëpp ànd nag danse. Mm-hmm. mais ànd nag parole aussi. boo koy xool surtout li may conseiller jeunesse bi ñoom ñu avenir bi appartenir. mooy que ni nañu gën a góorgóorlu musicalement. bind di bind di bind am solo. noonu la ñu gën a liggéey. harmonie. soo dee ndaw toll ci def carrière. utal ay bindkat soo mënul bind. même soo mënee bind sax utal ñu la bindal. c'est très parce que mooy tax nit ki def carrière. c'est très important. donc euh, je pense que tey actuellement musique bi commencé nañ tumurànke loolu. Mm-hmm, mm-hmm. mais na xale yi gën a góorgóorlu. Mm-hmm. ndax damay wax toujours nii c'est vrai que xale yi du ma ne lu ñuy def baaxul de baax na. faut que ñu encourager leen. parce que c'est la pépinière. ñoom ñooy nekk musique bu avenir ñoo yore avenir musique sénégalaise suba. baax na mm-hmm. mais li ma bëgg rek surtout mooy que ni bu ñu doyloo bu ñu doyloo seen xam-xam mm-hmm. nañu gën a gëstu gën a yéegal niveau yi parce que mag ñi mm-hmm. fi ñu ajoon musique bi ba léegi xale fekk bu leen fa wallaahi dëgg la waaw loolu foog ñu xam ko maa ngi encouragé ñëpp di ñaanal ñëpp nag am na solo ay grand looy wax ci sa moom mot de la fin mot de la fin mooy yàlla ñu jeexal at meeg jàmm amiin yaa rabbal alamin yàlla ñu yàlla ba boole ci xaaj bi jëm déwén amiin yaa rabbal alamin ñu ñëpp ñu tal ko fekkee ko Sénégal yàlla wàcce fi xéwal. amiin yaa rabbal aalamiin. ki fi gën yàlla na ko fi yàlla def. amiin yaa rabbal aalamiin te nit ñi am jàmm. am xéwal ci barke El Hadj Fallou mooy sama dernier mot. loolu am na solo. ayca grand Fallou ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax a baax yat ndax noppi nga yat boo noppee rek ayca kon ñu dem nan dem nan dem. abaa ku yokkul yaa wàññi pilis ku yokkul yaa wàññi pilis ku yokkul yaa wàññi. ba suma màggatee ba yegg ci lool ndey Assa Fall bàyyi taasu naata jabu mbay ajara mbay ca gees Papa Njaay coppet daan seen sekaa lëmbalu naar mbay gay fay xoolal salaam daanaan yoo ni ku dootu am ci kam weer sa xorom bari bayre boo waxee ñépp kontaan lii dafa jafe nee yaat bu yaay awa wax yaat bu yaay awa fa góor yu sa xorom bari bayre bu waxee ñëpp kontaan lii dafa jafe nee yaat mu yaayaa wax waa ba pilis Dakar na door pili e pilis bo aba xambal e xambal aba xambal e xambal bo xambal aba xambal bo xambal aay ko liiru jandu buum wure kàngam man buum ma gënal ku ma dàq yóbbu ma duuluñ xambal e xambal e xambal moo boo xamee sa boo xamulit sa xambal e xambal e xambal aba xambal moo boo xamee sa boo xamulit sa xambal yàgg waaye grand Fallou Dieng merci encore une fois noonu la ñuy daal di demaat grand théâtre xool ki nga xam ni moom mooy Bessel Bass lan lay yeggali foofu ki nga xam ni moom mooy ci défilé boobu nga xam ni moo amoon ak Thiané Diagne jur ji nañu dem grand théâtre xool yeggali li xewoon ci grand théâtre ay ca Bessel yow yaa tudd nan. Mondir Gueye. ah. dégg ngeen ko de nee na Mondir Gueye yow de yaa ma dàqal Abba Mondir Gueye ah. ah waaw ah? ah, tey de laa jommi tey tey nag laa nar tey lan ngeen nar a défilé pour euh, Thiané. waaw avant tout ñu ngi leen di remercier te di wax euh, que tey événement bi sunu événement la parce que Thiané euh, xam nañ Thiané ci wàllu couture. parce que tey événement boo xam ne la tey ñun euh, duñ ko défilé rek yam ci parce que tey euh, am na ay gan yu am solo yoo xam ni dañu ñëw déplacé wu pour ñëw et puis euh, xool création yi am Sénégal et surtout yu Thiané xam naa ni daal dinañ dinañ def nañ daan def rek. mais yow da nga jël lex. man waaw waaw waaw soxna see may toppatoo rek. <laughs> donc tey ñu xaar leen si li nga mm-hmm. xamante ne moom mooy défilé mm-hmm. euh, macha allah bu ñu solee yére nag mbubu góor bay défilé euh, da ngay am envie rek yére bi ñu sol nga jënd ko ci saa si mm-hmm. tey war lan lañ leen war a mën a xaar ak lan ngeen nar a joxe euh, ci podium bi. waaw comme d'habitude ah comme ni ñu ko defee woon ci première édition bi parce que xam nga maman Thiané moom. particularité bi mooy elle ne change pas une équipe qui gagne. donc fu mu toll nii ay anciens mannequins rek la woo. ñoo xam ne sax ñu si bëri bàyyi woon ay mag lañ <laughs> ma est-ce que du ma duggaat sax mbaa du soxla seen xëcc ah, du ma duggaat sax waaw bu moo ma tëjoon ci ruq nag mais est du ma duggaat kon ñu ngi leen di xaaral ah? waaw waaw ñoo ngi ñëw nag ñoo ngi ñëw préparer leen euh, vraiment spectacle bu rafet show bu am solo xam naa nag looloo leen di neex quoi te sama gaa yi itam ñoom ñi fi nekk nii moom mun nañ mais man Abba laa bëgg rek indi ko ngeen formel ma ko non Abba mun na dox mais man ma dox ba dara la xamul mun na dox mun na dox naa ko ne ko mus naa ko gis ci benn défilé si plaza. mu fay taxawalu noonu noonu mais doxam taxaw na rek nii rek. ak pantal bi ak weng bi. waaw baax na si nag ñoo ngi lay nuyu ñoo ngi lay nuyu. xaaree tey si podium bi. Euh, glamour. Mhm. dox ndànk jeex na. wax dox ndànk. daagu ndànk doxantu daagu waaw daa doo daagul ma tuuti rek ma xool. non bàyyi ba si kanam rek si no non sinon xam nga. doo def nañ répétition ba pare tey ngaa toog rek seetaan. Ah. Mhm. talon ngay sol wala carax. non talon yow tamit si kaw. maa lay xaar. <laughs> sibam sibam sibam laal nga sa ndégg nag rek yaay si bam laal nga ma eey fekk bu bees la si bam di bee koy nii si bam nga sa ñaari loxo sa ndigg di dox di ñëw ñamal ma si si bam si bam oo si bam laal nga ma musiki sa gaa si bam si bam oo si bam laal nga ma si bam si bam oo si bam laal nga ma musiki sa gaa si bam si bam oo si bam laal nga ma booy fecc si bam dangay mel ni xarutu laa bi sa ndigg nag rek yaay si bam laal nga ma fecc bu bees la si bam di dee ko indi jàppal sa ñaari loxo sa digg di dox di ñëw jaaral ma si ne gis naa ko xam naa ko mën naa ko taxul ñu wax yee defal ma ko fecc si ba ba ngay mel ni xaru ci la bi sa digg ni karaj karaj yaay si baw laal na ma maaleykum salaam na nga def noo tudd. man maa ngi tudd Jean Paul. kii JP la dafa waane. sama tur yi bëri na maa ngi tudd Jean Paul maa ngi tudd Akim maa ngi tuddu Maurice. JP yow xanaa njaago nga. waaw sama yaay njaago la. sa papa. sama papa waa Bénin la. waa Bénin waaw suppu kànja bi moom macha allah Aba kii. je suis un africain typique. macha moo la gën a fort de <laughs> mais tey ngeen daal di ñëw défileel Thiané lan la ñu leen mën a xaar yi ak seen tenue yi est-ce que natt ngeen ko ba pare lan nga war a sol yow. exactement bon tout s'est bien passé comme d'habitude hein bon Thiané la plupart du temps ay jigéen lay gën a solal mais tamit défilé boo gis culture boo gis góor si góor si la bokk. maanaam foog kilifa yi génn trois pièces yi génn gestionnaire bi génn bassin riche yi génn xam nga ñun nag on est là pour représenter gamme boobu noonu. nam naa la. maa xam nga lu ma jaaxal man ñii bi ma leen di xam dañoo sewoon. waaye léegi. mais dañoo am doy na wax mais wuy ma. mais bés léegi dañoo am xaalis. Ah, kon yéen ñëpp am ngeen di jabar kon xale xale yi jigéen salibat célibataire euh, nga xamante ne ñu ngi doon espérer ñi fi nekk ñëpp marié nañu. Ah, si la yàgg na depuis trois ans. yow tamit da bàyyi woon naa lu défilé mais comme euh, bis ko laaj quoi. te vraiment Thiané suñu maman la et tout tey dañ ñëw taxawu ko jàppale ko. tey ci bis bi euh, vraiment boo xoolee tey ñi bàyyi woon ñëpp ñu ngi fi woon. man bàyyi woon naa dañ ma woo ma bàyyi sama activité. institut euh, comme comme tout le monde ah ñëpp bàyyi seen activité ñëw teewal bis bi xam nga. vraiment en plus tam ñun on est des mannequins donc lii la ñu am. Euh, bis yu mel ni la ñu la ñu am. xoolal ku ci nekk sa ndax si bam fa nga toog mën leen ko si bam ba mu neex Sénégal yëngu ee festel si bam si bam si bam si bam laal nga ma si bam si bam si bam laal nga ma si bam si bam si bam laal nga ma si bam si bam si bam laal nga ma booy fecc si bam da ngay mel ni xarutu laa biir sa ndigg ni ko yéen si bam laal na leen sa ndigg ni kat yéen si moom laal na leen et eh, Bessel oui uh, uh, I talk I I talk to you English we come back now léegi léegi foofu ci Grand Théâtre merci am ma ma Thiané Diagne jur ji vraiment affaire yi am na solo lool lool lool yëre yi rafet na lool et puis ancien mannequin yi samay xarit rek laa ci gis ñoo doxandoo xam naa ne su ma koy wax du ngeen ma gëm waaye li ci kanam raw li bët ñoo doxandoo dañuy demaat foofu nga xam ne moom moo ca gaynde xool yi ki nga xam ne mooy Collé ak Papa Ndiaye ba tey ci ambiance biir gaynde nañ dem gaynde Collé mais Badiane sañse na mais Badiane sañse nga nga xamante ni mooy solo xale yi pare yi di jigéen yi pare yi bi di ñëw xaar leen bi ma war a def moo ma ko war a Mayweather Mayweather Floyd Mayweather le boxeur américain moo solo li Amady Badiane sol sañse nga Badiane tournoi siiw nag gaa lay waxal say yëf mais lépp na ma leen rek TFM sama télé bi waaw waaw <laughs> c'est mon grand frère l'homme de Godovita mooy Dakar ne dort pas plus waaw vraiment muy liggéey bu nice suñu benn xarit dañ ko def ba defatu ko léegi suñu rakk di ko def dañ ciy bëgg ànd ak moom vraiment émission bu nice boo xamante ni ñun mooy suñu émission ñun. man dama laa bëgg. bilaay maa la yàbboo. doo ma takk ñaareel. sees mari ci seddaay. xooleen Amady Badiane ay fendi la sol fendi. ba tey baax na. le boxeur américain Mayweather mooy sol lii fendi. naa la en tant que artiste en tant que ndaanaan sa morom artiste yi def lu rafet nga ñëw teew la ko bàyyi sa yitte yëpp ñëw toog ah ak guddi gi samedi bii nga waroon def yeneen nga ñëw toog tey lan ngay yëg ba tax na nga ñëw fi waaw xam dèjà guddi li ko waral dafa bari dèjà Ndiaye dafay sama xarit ñu yàgg lool nag lu bari dafa doon yàlla nag suturaal nu sagal nu ba tey képp ku bëgg fecc rek ci ñun nga ko gisee. dëgg la bëgg fecc tey fecc ñoo ko indi fi mu ne niveau bi mu ne. compétition kon bu ñu bayee waar ba bay si fii nii yàlla dogal ma am fu mu féete ma am fu la nag buy def dara nag ma ñu prochaine yooyu ngay def daal. waaw xam ñun mooy li ma la saa su ay ndongo lañ ay baay fa lañ aussi ay géwél lañ te xam nga géwél dafa bëgg lu baax. bëgg lu nooy. waaw noonu noonu la fa demee. bëgg lu baax. mais bi gis ngeen ko ñu def sargal mais passé gisoon nañ fi bi passé balaa Pape Diouf di dem salaam def fi sargal Pape Diouf avant avant Bercy la fi defoon moom avant Bercy ñu gis kii jóge bees Papa Ndiaye ñëw def sargal Pape Diouf tey ban yëg-yëg nga ci am yow tànk tànk en tant que ndaanaan. waaw yëg parce que nit amul lu dul nitam ndax ki ngay nekkal mu lay sagal fu ne ngay ànd ak moom fu ne di dem fu ne ci àddina bis jot nga sargal ko loolu war la parce que amaana tey lu mu séq Pape Diouf lu dëgg ci moom moo waral mu koy sargal parce que sargal dafa rëy ñu koy ñaanal mu koy def ay année yu bëree bare baree bëri di kontaan ci waa TFM di wax Abba sunu fraire boobu ne ko dalal jàmm yal na ko sunu borom defal jàmm ayca loolu rafet na loolu rafet na Papa Ndiaye Thiou moo doon rendre hommage kooku nga xam ni moom mooy euh, Papa Diouf ànd ceeg nga xam ne mooy xaritam bu yàgg ba Amady Badiane Amady lool lool lool dama bëgg Amady Badiane ak Samba leen lool lool lool yàlla rek laa koy sereel yàlla na seen jàmm yàgg baax a baax dañuy demaat foofu nga xam ne moom mooy dërëm ñu delloo euh, buum ca mboy ga dërëm lañ doon sargal nañu demaat ca Bessa Yaawo te ma fa xew ayca dërëm Ibrahima fay naa la sama jigéen sama xarit. tey Mbaye Babacar woote fi nga xamante ni mooy La Paillette di sargal dërëm ban yëg-yëg nga am ci loolu. a ah, yow ku la sagal ku la sagal réew mi la sagal ndax yow yaay mbokkum nday bi Sénégal yow sama mag nga sama xarit nga yow ku la sagal réew mi la sagal defoo lu dul baax ku la bañ baax a tax bàyyi ko yonent bi da ngaa baax da ngaa goree tey nag dina mel ni mbooju banaan foo dëgg mu rëpëj pëj ndey ndax yaakaar naa ni dërëm mi ku ko sargal réew mi nga sargal aka jongama aka rafet aka jongama waaye dëëm am nga maanaa personnalité waaye xoolal yàqu mbaxay géy yow mi lettu ay fiil dëëm yaa ma gënal màgget mbay mi fay ba dem paal eey xadimo bokku day bas yaa ma ñawal yaa ma ñawal yaa ma ñawal ci daal sargal fii nga xamante ni mooy La Paillote di sama dëkk samay xale yi nga xamante ni ñoo bokk dëkk jeune talent yi nekk ci koñ bi Babacar Diop di ma sargal ñu ñëw mu teew ah loolu di mbégte ci man ak euh, contentement bu rëy a rëy Kals maa ngi lay jaajëfal. mais maa ngi lay fay bu baax a baax a baax. tey nag spécialement dama ñëw euh, li ko waral ñaar la benn bi dama di jolof jolof ah beneen bi aussi mu nekk yow mu ma am cër bu mag ci yow. boo xamante ne nii euh, yàgg na dama la yàgg respecté kon su ma déggee fenn rek fu ñuy tuddee sa tur waxuma nag ñu ne dañ lay sargal damay ñëw ma am obligation sincèrement li tax ma gën a déplacé wu ñëw tey yow yaa ko waral nga nekk nit koo xam ne sa talent waxatuñ ko mais respect bi nga am ci nit ñi rek moom lañ la delloo tey. nuyu naa la Malaw. waa dërëm ña lay fay. tey ñuy sargal dërëm di artiste boo xamante ni artiste animatrice la lan mooy sa xalaat ak lan ngay sànni askan wi lay seetaan ak Babacar mi nga ñëwal muy sargal waaw ñu lay ñu ngi lay ziar dërëm. yow nag euh, yow bu ñu la woowee bu ñu lay sargal ñëpp artiste kenn warul nelaw looloo tax daa sonn nan sax mais nag dañuy ñëw ngir sa bis. Sëriñ Saliou kuy kuy ko bëgg da ngay dem Basse Mode Couture Parcelles Assainies Unité 12 en face euh, terminus Dakar dem dëkk bi boo ko defee di ci am incha allah. Mia du publicité day sama rakk rek di ma jàppale ba ma kaw dañ may sargal démb laa ko wax tey mu defar rob bi moo tax ma def ko nii nuyu naa la. bilaay fay naa la sama yaayu xol. tey ñu may sargal ma geesu gis xale yi parcelle jeune talent yëpp ñëw taxaw sama xol daal sedd na ah, ah yan kàddu ngay sànni askan wi lay seetaan. waaw kooku sunu yaay la dërëm. maa ngi delluwaat di siyaar di leen nuyu di leen dagaan bu wér di leen jox seen wàccuwaay di nag di waxaat di la nuyu yow mi sunu yaay dërëm yàllaa la yàllaa la baaxal ba noppi rek nga yaay fal baax te bëgguñu ñun seen talent yi mais yal na la yàlla teral Thank you. acca ñu ngi ñëwaat léegi foofu ca plage yu BCEAO ñu ngi fay ñëwaat euh, léegi léegi léegi waxoon naa leen sànq bi may jël benn ndaanaan bi waxoon naa leen dama am beneen ndaanaan boo xam ni dama ko invité fii ci biir euh, plateau Dakar ne dort plus beneen ndaanaan boobu doonatul ku ñuy présenté xanaa kay mu ñëw fii ñu koy laajte euh, Birahima ana lu bees li nga xam ni moom nga génne Pape Birahima ah, booy booy doomu Medina boobu lu bees takk takk takk Birahima <laughs> sama xarita noo def mais mbaa lépp jàmm les ñu ngi la koy delloo yaa ngi am jàmm. abaa no stress. nii sama waa ji kaay nii frère. mbaa lépp ngi dox. alhamdulilah gëj nañu gisee. waaw gëj nañu gisee nag gëj nañu gisee bu yàgg macha allah mais maa ngi lay gis. Ah. ndax maa ngi lay siiw bu baax di rafetlu macha allah li ngay def. jaajëf jaajëf fu Birahim toll ak Birahim ci lu mu nekk. waaw ñu ngi ci euh, liggéey bi boobu ba léegi euh, macha allah euh, ñu ngi def ay featuring ak gars yi parce que mm. artiste moom doo bàyyi da ngay continuer sa chemin. Ah. Euh, parfois nga def say affaire bopp parfois nga bokk ak def. nga partage teel micro ko ak euh, les artistes les artistes et mm-hmm. donc du la wàññi dara. Mm-hmm. Euh, actuellement nag ñu ngi ci préparation album bi ba tax na ñu fam ñaari single yoo xamante ni dañ ko bëgg a pour sénégalais yi. ak soppe yi nga xamante ni ñu ngi xaar Birahim ñu mën ci béggee ak xale yu ndaw yeeg yooyu noonu. avant single bi <laughs> avant single bi duo bi ak Bril Fight Fo. Uh-huh. duo bi. kii ceeb bu sew bi kii ceeb bu dijj bi loolu nan la demee avant ñu ñëw ci single bi. waa gis nga li ñu naan euh, musique moom communication la quoi. Mhm. Euh, da ngeen di communiquer aussi euh, ngeen nekk ay. moom mu nekk naan boo mhm. xamante ni dafa dégg daaj. Eh, Bril ñu ngi koy eh, nuyu. ñu ngi koy nuyu de passage respect ma ñëw fa doon def uh, namaray ak pagaay mm-hmm. uh, ak pagaay namaray waaw ci pagaay mbay uh, lañ doon def namaray doon ko defee studio brûle mm-hmm. brûle et mm-hmm. bi ma ko xoolee vraiment daan gis ay affaire mi muy def ci série et mu nekk nit bu mën a way aussi yaru quoi yaru il est tellement cool xam nga ma ne ko incha dañ def benn morceau Euh, ma ne ko nag ko tuddee jéegi ak taayfin yi quoi. jéegi ak taayfin yow jëlal taayfin yi rek ma jël jéegi. mais est-ce que loolu du yow li ngay dund euh, yow li ngay dund yow est du yow yaa bëgg jéeg yow est du yow yaa ko bëgg non dañuy waxtaan kenn dégluwuñu kenn saraanuñu dañuy waxtaan man ak yow waxtaan est du yow naturellement yow Birahim yaa bëgg jéeg <laughs> parce que bu jéeg bi ñëwee ni nga koy xoolee na nga koy xam nga di melasteku est-ce que yow ah ah ah am na lay déglu. <laughs> ay jëkk comme nangu woo ca tontu moom moo bëgg a jeeg ah, non non yaa bëgg jeeg wala moom ma bëgg jeeg waaw <laughs> ay ca Pape Birahim indil ñu single bu bees tàq tàq tàq lan ngay wax ci single bi waaw euh, Douta mbaay bi euh, di wax ni actuellement sax maa ngi ànd ak samay rakk yoo xamante ni ñoom ay ay joueurs lañ nag bi ñu ay fecckat mais euh, Douta Mbaye bi ni mu affaire seen yëf la waaw seen yëf booy excellent booy booy ah. kaaleen booy kaaleen booy international yooyu booy kaay leen booy booy dugg si leen booy. ay kaay leen taxaw nii booy ay jaaytaar lañ ay jaaytaar lañ booy dañoo waane kaay leen taxaw nii yee wala boogees ay ayca ayca ñu ngi ziar sama gaay respect gaay ay mbaa mu ñu dox bégee sama gaay a noonu. Uh-huh, waaw uh-huh. ñii samay jarbaat lañ uh, ñii samay rakk lañ et mm. tout euh, donc euh, Douta Mbaye bi dafa nekkoon loo xamante ni benn extrait bu ndaw la mm-hmm. euh, bi ma ko bi ma leen ko envoyé seen téléphone ñu gis ni nit yi bëgg nañ ko mm-hmm. xale yu ndaw yi te aussi man dama fi nekk ak mag ñi ak xale yi parfois comédie musicale day am mm-hmm. ndax gisoon nañ fi macha allah ay xalam Euh, bu ñuy woy euh, laa ilaha illa la mhm. euh, genre affaire yu ma làmbaay ngi ci làmbaay donc musique du yem mhm. ci loo xamante ni à chaque fois dafay nekk quelque boo xamante ni dafay sérieux quoi mhm, parfois comédie musicale xale yi foo ah, ah. du wàññi dara du wàññi aussi tamit waaw du manque du wàññi dara ci suñuy affaire parce que dañuy boole ñaar donc moo taxoon ma def duuta mbaay ay Adama ak Awa. ay xam nga. foo ci waaw foo ci daal. booy bëgg ko ma ne leen nag waaw su may dem Dakar Arena Repas dem leen di yóbbaale. comme yéen a koy fecc man du ma fecc. Ah, may ñu Birahim da nga ñëw taxaw fii nga ni booy yi ay ay feccikat ay joueur lañ booy yi dañoo ñëw rek ma xàmme leen parce que dafa am benn équipe ma saa noonu muy échauffé wu ma xool échauffement bi rek gis booy rek xam leen ki doon way naan ma fi su bukaan njee laa ji doo ma daa cu dégguma cu dégguma cu ma fi su bukaan njee laa ji doo ma daa yaa sabuleet yaa sabuleet gis nga booy. yaa sabule yaa sabule sama yaay awola yaay awola léegi Birame yow doo puus doo paas euh, Birame yow doo puus doo paas euh, dafa am loo xam ni dafay nekk surprise euh, parce que da nga ko woyoon ci way bu sedd way ko ci lu dal ma ñaan la ñu la Birame def ci mbalax nga def ci mbalax buñ ko may. yow demaatal toog sa place dimbali ma rek dimbali ma rek <laughs> dimbali ma rek demaatal toog sa place ci kanam léegi ma waat la nga ñëw ñeekal. ah di leen wax nag Douta Mbaye baa ngi ci euh, YouTube bi waaw. ci suba lañ ko dugal. Mhm. kon nag xale yëpp dootu mbaay. ayca maa la wax une semaine day. nga am ay vingt millions vues parce que xale yee ko bëgg. lii wayu xale yi la te mag ñi dafa am lu mu fàttali loolu am na solo loolu ba tey noonu la ñuy daal dem xooli les vidéos yi nga xam ni moom la wax ngeen def ay challenge vidéo def leen ay vidéo selfie envoyé wuñ ko fu ngeen mënti nekk rek mën ngeen ñoo envoyé seen vidéo dañu koy jël bu ñu ko jëlee lay neex ñu daal di koy teg ñu dem xool les vidéos selfie yi gën a rafet te ñëwaat ci plateau Dakar ne dort plus ay ci xam nga ni Dakar lu neex dañ ciy ànd ci biir Dakar ne dort plus

tout le monde, man Chérifa, je suis Dakar ne dort plus avec Abba Nostré sur la TFM. waaw kon ni ngeen ko gisee ñun ñëpp ñu ngi suivre Dakar ne dort plus avec Abba No Stress daal di envoyé seen i vidéo xool leen ci suñu ay réseaux sociaux wala ngeen xool ci ay numéro yoo xam ni boo demee suñu réseau tamit di ko fa fekk nga daal di ci envoyé vidéo bi nga xam ni neex na vidéo yi cekkete na vidéo yi waaye ba tey maa ngi wut xale bi nga xam ni mooy taxaw sama wet xale boobu maa ba tey waa réew mi xanaa daa amatul ay xale yu cekkete xale yu jong ma njool ca kaw mel ni leen neex xool xoolaat vidéo yi may gis ak xale yi may envoyé seen ay photo naan ma ñoo bëgg taxaw fii ñooñu xam nañ ni duñ fi taxaw maa ko wax xale boo xam ne ku ko xool xoolaat ko laa bëgg fii bu ma ko amul du ma ko jël nañu demaat foofu ci grand théâtre xool ki nga xam ne moom mooy ba tey euh, li nga xam ne moom moo nekkoon ci défilé boobu nga xam ne moo xewoon foofu ca Caane Jaan te Bessél Bass nekkoon ñu foofu ñu dem xooli grand théâtre te ñëw yeggali ba tey bu jeex rek dinaa bëgg ku soxol neex loxo ci kawaay ku ci nekk sax naa si kaw ba sa bopp nan leen ko si kaw ba mu neex Sénégal yëngu FSL si ma si ma si ma moo si ma laal nga ma sa ko si kii si ma si ma moo si ma laal nga ma si kii sa ka si ma si ma moo si ma laal nga ma sa ko si kii si ma si ma moo si ma laal nga ma sa si ma fekk si ma dali nim ni xaru laal wi asma mi ni dara ci yéen si ma laal na leen aca waay nga ni waaye yow ma foo ngi nii te boo leen yéegee ci podium bi doo leen ko wone tey lan lañ leen di xaar. tey xam nga caa caane suñu yaay la. Mhm. donc même ñi bàyyi woon bu la woowee. da ngay tamit da nga bàyyi woon. waaw. yéen xanaa tey moom euh, bàyyi moo fi nekk. ndoro dara. ba pare ñëpp ko ràññee si milieu bi. Mhm. donc vous vous donc bu ñu woowee ñun même bu ñu bàyyi woon tout ça ñu ngi soog a ñëw. bonsoir madame. ça va Bessel. mais sa robe bu baax na. merci beaucoup chérie. lan mooy sa teewaay fii ci dakaar ne dort pas waaw euh, ok Dakar ne dort pas bi aussi Thiané dafa nekk nit ku baax c'est par la première fois ñuy ñëw sama xaritu sœur la te moom xam nga lépp lu muy def rek daf koy def ak euh, doole ba pare moom daal dafay dundal Sénégal. bàyyi fi Bessél. est-ce que xàmmee ngeen kii xool leen ko bu baax rek Mariam Sidibé waaw Mariam Sidibé. Mariam Sidibé la mën naa la. maa la raw ci loo ne. waa gis nga ñëw. xëta bi xool changé. Eh waay ñun léegi ay ay ay ay. ñëwaat nañu nañu ñun ñëpp. mais léegi ay grande dame lañ. xam nga c'est une grande retrouvaille waaw ñun ñëpp ñu dellu si waat ñëw. mais mun nañ la xaaraat si yeneen défilé. non même pas nag. Oh. non bàyyi naa oh, oh. carrément c'est que Thiané moom xam nga rek c'est triste euh, bon koo xam ne ci loolu fekk si la moom ci lu mu nekk xaw ma nu mu koy waxee sax waaw loolu la daal ñu làkk bi mbaa bambara bi yëpp benn ça va ça tax ngay ñàngal kenn mun laa làqatu ko waaye man mii rek yow xanaa xamoo ma man maay man maay madame dañoo waane non jëm naa la daw man ma gis loolu man yow laa doon wër dama la dama la calculer rek booy da dugg si rek ma daal di jàkkaarloog yow yow da ngay défilé wala garde du corps nga garde du Euh, tey nan nga nar a défilé garde du waaw yéeg si podium bi rek. Mhm. toj ko. ñëwaat yàgg nga ci wala ancien nga wala lan. waaw mën naa ne ancien laa de. da nga bàyyi woon mën naa ko non non non. yow bàyyi baal ma sañse madame Mbacke bi waaw madame Mbacke li nga sol moom lan la. xanaa valour rek valvet sol ko ñëw wuy si sama xarit. ah madame Mbacke ni sañse na de. parce que tey dañ ni la nuit de Grand Boubou. te ñu eh, lay madame Mbacke sama yaay yaay su koy na kayta madame Mbacke bu aba xet bi gëlli lii gëlli nii ci suuf bu ay boo ko doon kii maa ngi koy yëg mu may dal mu ngi dal nga daal di ñëw wi si ki nga xamante ne moom mooy eh, Thiané Diagne donc nan nga gisee tey li nga xamante ne rek moom mooy eh, nuit di boubou bi mu organisé xanaa di ko ñaanal réussir rek di ko ñaanal mu koy def at yu bari parce que soxna Thiané dafa baax yiw nag di nditu nit ñi ñëpp bëgg ko mu mën a ànd ak ñëpp macha allah. Aïcha Bessel uh, wait uh, we come back again of the show in the big theatre I know I know I am uh, I am I have a good English I know <laughs> merci beaucoup Aïcha noonu la ñu doxaatee daal di dem foofu nga xam ni moom mooy ca Collé demaat xool li nga xam ni moom mooy xew ca gaynde ba tey ak ki nga xam ni moom mooy Papa Ndiaye Thiou ak li nga xam ni moom mooy di rendre hommage kooku nga xam mooy Papa Diouf ba tey nañ jëm gaynde te ñëwaat léegi yeggali ba tey Aïcha kii eh, way nii di ok Pape Pape Pape <laughs> man Aba Aba rek jeex na maa la raw. yaa ne. yëg ngeen ni Aba maa ngi ñëw dal sa kaw ndax Dakar ne dort pas maa koy def. Ah! barke bu jeexee rek jeex na wax amul. mais loolu dina ma neex. na may ñëw ëpp na. mais Ndoye Gueye Junior te micro Dakar ne dort loolu. maa ngi ci samay garde maa ngi ci samay garde la man yow Mandoumbe Binta Binta Camara bu ñëwee Aba xam ne mi ngi soog am élément maa ngi ñëw. du ma fi fekk du ma fi fekk. Dakar la plus de Dakar la. je lance solennellement ma fi fekk. ci réew mi ñàkk ko boo bëggee nekk ci jàmm de seetaan Dakar door pas plus. annonce baa ngi noonu day ngay junior ci biir Dakar door pas plus barke yonent bi ñaari junior yi tukki danaan pëcax. nee naa leen lu waay di na ko xaar ndax ñoo ngi ñëw. kon samedi waa samedi foofu ma ñëw laal plateau Aba maa ngi ñëw. ay fay. ci àddina kon wéro. FM rek di daw. Futurs Médias ñàkk koo seetaan da ngay am problème boobu lan nga war a nga def déplacement ñëw ci soirée bi. waaw Papa Ndiaye sama xarit la muy sargal sama papa ñëpp xamee ma ak moom ma kontaan trop tey ci teew ci bis bi. am am nga jëkkër am nga jëkkër. amaguma dara. kii kan. dama ko ñeme kii sama xarit la. maa bëgg may aba ñaareer ndax ab. abaa noonu la ma yebee. bëgg nga ko. waaw dama bëgg man xam naa faram dama bëgg ngeen may faram. wax nga ma xam naa faram xam naa faram. waaye du ma bëgg xam na ma damay yàq waaye abaa demal toog kii xale bi koy xool da di ko bëgg sama xale faram kii eh, maa xam faram da gën a daanu pour nga gën a sarme wu gën di la sarme di la sama yëpp sedd bi la dafa métti ñi ngi noo bëgg jëkkër tamit non jaru ko ah. jaru ko jongo ma nga ba pare ah. mhm. tibboo nga man taay takk sëy laaj am seet dafa metti takk waaw ah, dëgg la waaw seet ngi takk sëy may abaa ñaareel foofu toog ma takk ma rek ah amul benn problème takk naa la <laughs> combat laa lay may. ah waaw eh, yow eh, mais Collé mi yow Collé lan la. Collé lan la. Ah. nuyu naa la Fatou. maa ngi lay fay Collé. Mbaye Basu nu lay tàggee. Mbaye Basu. Mbaye Basu maa ngi laa ziar. maa lay delloo ziar. mu lay nuyu nuyu bu neex comme ndar-ndar nuyu. kontaan naa loolu naa si. tax jonga ma. waaw gis nga ko de. lan moo tax ba <laughs> dañuy jéem rek. macha allah. mais tey lu waral sa teewaay yi nga def ba mu baax ñëw toog macha allah lu waral lii nga def déplacé xam nga dafa guddi boo jugee rek mag bu jugee rek am na lu ko yëkkati doom lu la yëkkati Fatou Mbaye moom dafa baax nekk nitu nit ñi kon bu wootee ñëppay jóg soo màggatee mbaa nga xar xam nga kuy bégal gono yi mag ñee la waaye yaa jàngal ndaw ñi kuy bu dàggaa ngi nii xale ci yow sou magazinho, mas nesse fim. ñëw Papa Ndiaye Thiou sañse nga loolu waaye Papa Diouf xaw na laa rey ak benn chemise boo xam ni tarkalla ay bul yu bare lañ ci def yu bari couleur lool lool lool ah, daal di koy génne ci tendance ah daal di def li nga xam ni moom mooy euh, fashion ah mu rafet lool lool lool waaye yow kii Ndeye Gueye Junior bëgg naa nga ñëw ànd ak maam Numbe ànd ak ki nga xam ni moom mooy Binta ànd ak Kolle xoola ñu naan oh <laughs> nañ dem ca plage Bessayaawo ba tey ak dërëm daal di koy yëngal ñëwaat ci ba tey ci plateau Dakar ne dort plus ñu dem Bessayaawo dërëm noo def. dërëm tey jam nekk doon la kan ee tey jam nekk doon la kan ee tey jam nekk doon la kan wala ñu tudu wala mo to bu dërëm yaa ci yow la ko doon mu mu du ko fay naa roon sa jaga du ko jël bu la tak ko ci ko doon ma lay ko defal ba la ko doon eh ba ba bien New maa ngi lay bëggee waa li nga bàyyi Fall lan la foo ko teg lan mooy seen lan mooy seen uh, mbégte ci bis waa mbay dafa doon koo xam ne suma xarit la dama doon ànd man moom njën saw tiijaan baabakar dem si yàlla si yàlla ko yàlla xare àjjana njéen mu doon ku baax mbay man moo moo waral mu ñëw dama ñëw ba sama gàlle ne ma damaa bëgg nga ñëw El nuy naa la te bég ci lool ci sa teewaay ci sargal. dërëm ñu ngi lay fay. di kontaan bu baax ci li nga xamante ni mooy bésu tey jii ndaxit it bés la ba nga xamante ne suñu mbégte la ndax suñu mag la ñu siy sargal ndax ku ne dërëm tey day teew day baax ñu seede li nga xamante ni mooy mbaaxam loo xam ne dañu ko dund ak moom. ñu dund ko ak moom mu jëfe ko ak ñun ndax it mën nañ ni tey ay rakk-rakkaatam lañ waaye dafa maase ñun dërëm xeebalul kenn bësam man dafa am loo xamante ne dafa ma marqué ci moom te mu yàgg loolu bés ñëw sama dîner de gala sama famille ñëpp teew deux heures du matin laa woo dërëm barki Bamba mu dagg yitteem yëpp ñëw teewal ma sargal ma sagal ma samay kanam yi nga xamante ne moo de ay mbokk. ah non non non fii fii ma gis la rawatina yow mi nga xamante ni naan kulli fad yéen kàddu ngay sànni askan ak fan si lay seetaan ci Dakar. dëgg la xam nga dafa am nit ñi ak nit ki. yow nit nga. donc yow man ak yow dañu dañu def trajet bu bu gudd lool. ma gis toppatoo bi ak yiir gi ma yiiroon ak woyof gi ak attention bi nga amoon ci man loolu c'est très important na ko nit ñi di bàyyi xel. loolu moo tax bokk na ci li tax ma jàpp la jàpp naa la lool. jàpp naa la ndax Serigne Touba mais jàpp naa la lool ndax loolu parce que loolu dafa amoon solo ci man. muy mbégte ak kontaan rek tey nga ñëw ci sargal bi ma buur di yan kaddu ngay sànni askan wi. waaw Guèye Ndiore ba si yow soo ma yëkkati woon 6 heures du matin sax damay jóg ndax dañ naan diw baax na nañ laaj ba xam ndax mbokk yee ko wax man seen kër laay say waa macha allah daf ma jàppee ne rek xam lépp lu mu xew la rek mu ne xadiloo ba ci reer bi maa ko ñëw toog yal na yàlla guddal fanam. Seeri a Diol ci loo ne. ça va dërëm yaay nam naa la. buur géwal Babacar di sargal dërëm yaay yéen ñëpp ngeen ñëw teew am naa mbégte nag ak kontaante gestu gis samay mbokk ah yan kàddu ngay sànni askan wi lay seetaan waaw ñu ngi koy ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax a baax de bis bi moom dërëm moo woote rek nekk sama taaw yaay jàpp ma bëgg ma lu ma mel rek moom la kon bu wootee dañuy ñëw rek teew jàppale ko ci ba mu baax maamam ay xaritam dërëm ak ay soppeem ay am di jàmm sargal baa ngi noonu Mia loolu laa la jëlale woon fii ci La Poyette Peace and Love ak Bas mi nga xamante ni tubaarkalla macha allah xale bi jëngal jamono ak ay robb fa laale sànneeku ñu def lanu saf te yamuñu ci ndax ndumbe madam Ndiaye moo ne ma sëva bu riche la ma jox ne ma demal bégal Sénégal comme ñooñ nga xamante ni ñoo may jàppale borom salon fàccaw laay ndumbe loo dund doyul ayca dërëm merci beaucoup woon nga ñu ne xew mi yow yaa ko moomoon yow lañ ko tuddee woon sànca nga xew mi maquillage nga xew mi teg nga sa cheveux ci xew mi ay te xew mi nag sa xew la waaye benn la ci xew yi nga war a am yeneen xew yi ngi ñëw waaye am na beneen xew woo xam ni dafa war a xew le 15 xew la mu rëy moo xam ni sama rakk koy xewal kooku sama pété la sama tippo li booy naan sama appo la maa ko tippo ci gël tàppe lay xewee kan la Mame Ndoumbe fecckat bu mag boobu artiste bu mag bi laay wax Mame Ndoumbe kan la ko dippee Youssouma Jigéen Ndour ak kan doomu ndeyam nga Mbaye Gueye Faye ak kan l'incontournable l'animateur le sire de l'animation sénégalaise monsieur Grand son excellence Boubacar Diallo ak kan rakkam ja tarkal kenn booleel ma ci maa ci def sama bopp aba no stress maa ci dugal sama bopp la quinze muy sabar bu mag a mag boo xam ni ma ngay xew foofu nga xam ni moom mooy cëggal tàppe ak kan maam numbe maam numbe sabar gii amul lu ma ciy maye dama ci amul dara loo xam ne rek dama ci maye boo weddee li may wax nii dama lay wax ñi may dar ana yaat <laughs> abaa ñu delloo ko ca baa ñu delloo ko ca Adja ñu lay dar sax ñëwal Aba maa lay dar demal le 15 Aba maa lay dar demal le 15 Aba maa lay dar demal le 15 Aba maa lay dar demal le 15 Aba fii dëgër naam est-ce que dëgër na kat est-ce que dëgër na kat billaahi fii dëgër na yaat fii dëgër man kay le 15 laay laajte ndax seen base ba dëgër na le 15 gël tàppe xaar leen di ngeen gis lu ngeen musul gis si àdduna waaye dañ ko ñamali woon rek ñu ñam tuuti euh, mu neex lool lool lool dañu ciy ñëwaat daal di xool li nga xam ni euh, moom moo fay xew nañu dem xooli vidéo bi nga xam ni moom moo def buzz ci internet bi vidéo bi def buzz ci internet bi chaque semaine dañu leen wan vidéo bi nga xam ni moo yëngal internet bi ak euh, la complicité de la régie nañu dem xooli vidéo bi te ñëwaat léegi léegi léegi ayca ni Ndakaaru neex na ngeen son bi ma ci gën a neex mooy les réseaux sociaux bu leen bàyyi de def seeni i buzz def leen ci lu leen neex en tout cas man maa ngi ci biir réseaux sociaux yi bégee waaye nag moom Birahim waxoon naa leen dina ñëwaat Pape Birahim dafa génne single daal di koy def mu acoustique daal di koy def mu xaw kii ma ne ko Birahim yëngal ko ndeke Birahim da koy yëngal Birahim yëngal na ko Mao Pape Birahim yëngal na ko ayca joueur yi jaaxal na. Eh, Birame ñi Aliou Cissé du leen woote bu soobee yàlla. Ah. ñi ñi di bu soobee bu dee fekk maa ngi dund Aliou di woo ñi. non Aba Aba nee na woo. yéen ñii de allah Aba di kontaan ci gars yi nu ñu accueillir ñaari single yi. am na solo. Ah, am na solo trop macha allah aussi dañ koy may euh, soppe yi. Euh, mm-hmm. ci décembre bi. Mm-hmm. incha allah di leen wax ni album moom lépp pare na daaw de li ñu daje mën ak yow ci arbre de Noël. ren baa yaa ngi wàcc sa bopp <laughs> daaw de fu ma dugg arbitre nawet ba nga nga fekk ma fu ma dugg awa fekk ma <laughs> yàlla kale <laughs> léegi Aja Ibrahima ñu ngi lay kontaan ñu bàyyi rek wax sa mot de la fin waaw waaw di rafetlu émission bi macha allah mm. euh, am na fën gars yi ñu ciy bëggee te yow comme dañ ne Aba no stress moom Aba fu mu nekk moom kenn du am stress macha allah yàlla la suñu borom guddal sa fan nit ku baax ko quoi nit bu oyof Euh, nit boo xamante ni foo ko fekk rek abaa mu ngi reetaan quoi. ñoo far loolu la àdduna am solo macha allah dañuy ñaan yàlla loolu yokk yokk yokk. jaajëf ba affaire bi daal gën a jëm kanam quoi. jaajëf Ibrahima yàlla na fi yàlla bàyyi parce que yaay dindi stress yu nit ñi. ay ci kontaan nañ ci Ibrahima maa ngi lay bëggee nañu dem euh, ca Grand Théâtre xool li nga xam ni euh, bi yoon nag la ñuy gëj Grand Théâtre nañu dem xool li nga xam ni moo xewoon ca défilé boobu nga xam ni Thiana Diagne jour ji moo ko doon ñu ngi taxaw ak nag ki nga xamante ne rek moom la ñu jox rek moom la dénk wàllum cosaan ak aada rawatina culture monsieur le ministre gis nañ ne lu xew rek macha allah da ciy daal di taxaw daal di ñëw nag si bësu caane bi waaye balaa ñuy wax ak moom xool leen tenue bi mu sol macha allah c'est très très très classe euh, nan nga nar a dundee tey bés bi nga xamante ne moom mooy bësu caane bi. Euh, bés bu mu ma neex la d'abord caane la. c'est une très très grande créatrice, une styliste de renom. C'est tout à fait normal et peut-être même fondamental que le ministre la Culture vienne ici ñëw fekkale ko bésam bii et puis wane ñun suñu intérêt bi nga xam ne moom la ñu attaché ci lu mel ni li muy def. salaamaaleykum. <laughs> maaleykum salaam est-ce que war naa présenter sama bopp. man est-ce que war naa présenter sama bopp. Ah, yow moom xam naa ne jarul ngay présenter sa bopp parce que ñëpp rañee nañ la <laughs> waa kay. <laughs> Sadiya Gueye. bien tout temps égale à elle-même elle ne change pas de grossir machallah <laughs> oui ça balaa ñuy commencer c'est-à-dire avoir une vie saine tout ça tout tout, tout seulement et puis euh, dund correctement hmm, loolu rek la dund correctement sur tous les plans. Euh. Euh, la lay def. xanaa comme li ngay wax rek ci défilé laa nekkoon. ci dans ci bu gën a kawe ah xam ni rek ñu gi wane li nga xam ni euh, euh, créateurs yi ñu ngi koy def et ça c'est important. bi te nee naa leen ku ne Thiané Diagne da nga koy daal di xàmmee si li nga xamante ne saa su ne mu ngi koy def àdduna ñëpp kontaan ci mu yàgg ci ñu déggoon ko nag fan yële ñu interviewé ko mu ne nag xam-xam du doy ba mu ko xamee ba pare dafa dem yokkiwaat xam-xam dem jàngaat tey nag mu nar a génn feneen tungu ne du teew ñu nataal kon nag soxna Thiané tey lan la leen nit ñi war a mën a xaaree sa blanc d'abord baax na. kontaan naa surtout TFM su ma leen gisee damay kontaan. non Thiané ah, Diagne yaa moom jour ji da ngaa sañse ay surprise yu bëri mooy daal li ma leen di wax mooy ne euh, facette yu nekk dina génn tey parce que liggéey lañ def c'est un an de travail incha ci kanam di ngeen ci gis. su ko ibe bije kortananti tananti jang dimbale dimbayal ni su kononkol bije ikke ma fanam bije yemul kanu yaatu ko non wax na dëgg parce que doo moom sama jëkkër la donc ma koy nuyu kii moom kenn dootu ko présenté nga sol sa mbubb bu baax donc yow yaa nar a yéeg yaa na jour ji waaw on a dit la nuit du boubou et le Mali à l'honneur rawatina nag li nga xamante ne mooy sama mbokk soose. waaw jeex na takk mbaa di man ni ko anakam mooy laal bii la la. mu ngi noonu euh, jërë ngeen jëf jaajëf ki nga xam ni moom mooy euh, Thiané Diagne jour ji waaye jaajëf ki nga xam ni moom mooy Bessel Bass jërë ngeen jëf kontaan nañu gis nañu ay bubu ba doyal gis nañu lu rafet ba doyal et puis bubu yi li ci gën a neex mooy bàyyi leen di wax euh, la cuubal mani la dëkk Aminata Baxa Yoko cuubatul sama maam la léegi cuubatul doom ci xel bu baax a baax a baax loo fa gis ak ci ay cuub Aminata ko cuub tarkal la muy sama deret nag di sama fi nga xam ni moom mooy samay origine ma kontaan ci bu baax a baax a baax destination pour bàyyi sax di perdre ay dem xool Collé ni muy tëjee foofu nga xam ni moom mooy sargal Papa Diouf ak Papa Ndiaye Thiou ca foofu ca gaynde ñu dem xooli Collé te ñëwaat Collé e eh, dëgg la yow Aminata cuubatul nag ñoo ko am en live balaa benn site di ko jël wala balaa benn télé ko jël Serigne Mado ngi nii kii moo bëgg Mado moo koy waaj a takk na may gu njëkk gi nag Aba yow la koy jox Kole man loolu waxuma ji de bi pass dama ci amoon problème waxuma waxuma yonent bi bëgg maam si anat sa sàbb xarit xanaa ah, ah, ah, gërëm sama xarit bi nga xam ne mooy borom pono yi dëgg soirée bu mag bi ànd seeg Papa Ndiaye muy sargal Pape Diouf di sunu mag ci showbiz bi. Mado yow la bëgg Mado. Mado man la bëgg. yow la bëgg. ko bëgg na keba mii moom ah yow. mais da ngay takk balaa maas kaar maas. yow daal lu mu mënti doon kaar kaar kaar. mu daa mujjee ba ñëw. dina ne Mado mën na ay xeetu baax baax waa ah, Sénégal. xeeti baax baax yi Mado rek. maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay bay sama. mais si ngoom mi ngay yëy ni ma charmer pour lan la waay. non dama soxla may charmer wala. dama soxla dama soxla instant yii dama kontaan sama xol dafa fees. vraiment man naa Eto production Aba maa ngi lay nuyu maa bëggee sama frère la sama xarit la. sama frère Eto c'est mon frère. Papa Ndiaye moo jógee Bercy. Hmm. ak ma Koutia. Eto production se mon frère. le frère de Samba Ken l'homme de Bonavita Eto. respect affaire bu nice parce que Pape Diouf mooy suñu leader ñun waa 100 pour 100 Pape Diouf lañu. moo tax vraiment dañ ci kontaan jig naa yaa ngi fashion. nga nii mais ci loo ne. maa ngi nii foo jugee. Italie. Ah, foo jugee nii nii Italie nii ñëw. Hmm. wala da nga da nga bëgg wax olof rek. ñaay euh, Sénégal wala nga koy wax. waaw buongiorno. buongiorno mais tey lan la waral nga ñëw ci soir. waaw parce que Pam Ndiaye moo ñu invité maak sama sœur bi jugee Marseille. Dewoo Ndiaye ñu ne woon nañ ñëw doxantu rek def acte de présence. def ba mu baax. lii yaa ngi ci dal sant yàlla ba mu baax. yéen daal nii ngeen mel daal. bàyyi ñu Sénégal fii ñuy nii ñuy nii ñun mën nañu de pitié dimbali leen ma yóbbu leen ma booyee dem. fashion liggéey ba muy moom ba pare boole ci fashion xam nga liggéey ba liggéey jotee boole ci fashion ci yéen daal dégg nga loolu Sénégal fer nañ ci ay waay waay nag yombul dafa ne moom dafa metti daw guddi daw bëccëg dégg noonu comme ni ko français bi di waxee rek borom maison de bourse moo fa am am na lu xew kon dinaa ko wax loolu waaye am na xale bu ñëw dinaa ko wax dee dugg baa maa ngi nii ne naa la su ma ñëwee gaynde ci gaynde gi lay tëjee ba muy moom dama sonn nag franchement moo tax ma simbi samay daal def tànku neen raaj ci zéro stress nee naa la man dara fere gaw ma ñeente nee naa la dakoon na daa pas plus la ñu wax def ba mu tëb tey nag li laa la indiloon nee naa la ci sargal Pape Diouf Papa Ndiaye ci toj na fi way na wayu neex ndaa naa ne wuy si neen ko fii toj fii nee na paccax waaye nag duma fàttali nag sama xarit suma grand kooku mooy Paco boroom gaynde maa ngi lay nuyu ak sama yaay ami collègue ci xool ma lugal sama loxo ci gaynde gi ñu xam ne maa ñeme plus manger ayca Collé merci beaucoup Collé euh, ñu ngi lay bëggee bu baax a baax a baax di bëggee Papa Ndiaye Thiou Papa Diouf ak ñi nga xam ne ñoo fa teewoon ñëpp ñëpp ñëpp ñu ngi leen di kontaane en tout cas lu bare bare bare dafa mel ni fi ñu toll nii la ma amoon ci ci ci ci ci ci ay dafa xaw a jeex tuuti may leen ma rek cinq minutes rek cinq minutes ma wàcce kër gi cinq rek ma toj kër gi ana yaat nelaw yi wax ñu say activité ci yan nga nekk ak ku la soxla fan la lay fekk wala fan la lay woo. waa Aba ñu ngi sant yàlla bu wér a wér a wér mm-hmm. di nuyu ci yonent bi di sant suñuy waajur mm-hmm. di di la sant bu baax a baax a baax. Mm-hmm. di sant tamit sama jigéen bi nga xamante ne bii. aje aje waaw maa ngi lay nuyu bu wér. di nuyu ñuy seetaan fi xool. waaw maa maa ngi lay nuyu bu wér a wér a wér. di nuyu di nuyu ñuy seetaan ñëpp. di nuyu sama jigéen bi nga xamante ne bi moo tax ma yegg si fii ah nga xam ne daf ma bàyyi xel lool muy Alima Ndione waaye yow moom kenn du yow. sama yaay la. yow yàgg na noo tase. jaajëf waaw kay. jaajëf di nuyu nag balaa dara xew. Mhm. sama groupe bi ma àndal. waaw ah. waaw parce que yaat mënul dara boo déggee yaat yaat yaat ji ñii rek la Malick Ndongo musaa Ndiaye Bàcc Tama xam nga. am na solo ñooñu ñoo ma jàppale. di nuyu sama jabar. <laughs> yaayu Khadija ndey buub borom dikoon ah waaw waaw Baba Ndiémé il faut. ayca tey ku la soxla te bëggoon nga defal ko li nga xam ni moom mooy euh, événement wala nga ñëw jouer ko ci ban numéro la lay woo. waaw da nga may woo ci 77 rek. 77 749. 749 33. 33 31. 31 waaw. 77. 77. 749. 749. 33. 33. 31. 31. kese. yat kontaan naa de. non maa ngi gën a bëgg. ayca merci beaucoup jërë ngeen jëf. c'était un plaisir di nuyu sama chauffeur bi. ah sama chauffeur bi. ayca Ndiaga Gueye. nuyu ko mi ngi nii ci biti fu may oh. jëm moo ma yóbbu baax ci man di toog di ma xaar ba ma pare. di nuyu nag fi ka damaa xari woon matt nag. waaw moo tax jotoo ma. waaw di nuyu Joor Caan waaw mago ami Caan waaw mi ma yendaloon tey hmm. mu teral ma may waxaa bari am na solo moo tax jotoo ma woon am na solo merci beaucoup et c'était a baax a baax en tout cas man maa ngi leen souhaiter un ngeen passé ko jërë ngeen jëf ma jox rendez ba samedi prochain ñu yëngalaat ko ba mu yëngatu jërë ngeen jëf kontaan naa ci sama équipe bi nga xam ni ñoom ñoo may bokk na ci sama caméraman yooyu nga xam ni moom mooy Mbisu Mbisaan waaye bokk na ci of Mbay suma xarit bi xam ni moom mooy Mor Xarma maa ngi lay kontaane son Aziz Soumaré réalisation Mao jinne cam euh, jinne réalisateur yi maa ngi lay bëggee bu baax si Cissé waaye maquillage kooku nga xam mooy sama maquilleuse bu mag bi Yacine la maa ngi koy kontaane bu baax lumière Boni Abdou ak Cheikh maa ngi leen di bëggee lu bëree bëri vidéo centi ak wës jërë ngeen jëf yéen ñu nekkoon seen i kër di ñu bàyyi xel téléspectateurs yi ñu ngi leen kontaane waaye sama équipe maa ngi leen di bëggee Mia kontaan naa a a Dakar